Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de di like, merci de di abonné, surtout gars di abonné di ba cloche notification bi des de famille bi. Di jégalu gars un petit ci retard hein, di wax également sur une sénégalais sénégalaise, foo leen mënti ah, Afrique Europe Amérique États-Unis ah, Asie Chine Brésil Espagne Bruxelles Canada fàttuñ fenn gox yi également ci biir Afrique Cameroun Gambie gars Sénégal également gox yi gën a sori ñu ngi jël suñu loxo di leen ko de di wax gars yi rek une ngi leen di wax jaajëf képp ku feebar suñu une boîte na fëgg sa bopp nga wér ñu dëddu suñu borom na suñu tolloog sénégalais yi ci kasso également suñu borom yalla na len fa génne gars téga dem ci yoon bi on avance ensemble comme on le dit parce que c'est la famille e sportivité actualité bi gars day wax ci li nga xamné moy forfait Alfred Gomis na len jox détail la moy forfait lutax mu forfait euh, également Gary Neville bi Sadio Mané une blague pour Liverpool wax ci également ki Antonio Conte mi nga xamné ne ñu koy ci ben club bu mag notamment ci France par rapport à ça gars yene kay d'abord stade ak Demba Faror ñu ne Lille veut y croire contre Chelsea la Juve face à Villarreal loolu lañ wax ñu wax également ci Idrissa Gana nga xamné jamono ji mi ngi am ay problème ci nga xam ne mooy euh, ci Paris Saint-Germain ak Duc mi nga xam dañ ko éliminé ci bool bi par rapport à ça également ñu wax ne Sidiate Sarr moom donc ñibbi na ca Thiès par rapport information ñu doon joxe yéen kay bi di record ni pour les Reds rien d'autre que la victoire par rapport ak match bi nga xam ne day am tey diggante Liverpool ak Arsenal ki nga wax ne également moom mooy Edouard Mendy Rewmi Sport ñëw ne les Pharaons décalent leur début de regroupement ñoom si jëm si seen match contre Égypte Sénégal donc Hakim Ziyech refuse sa convocation loolu yéen kay bi di Rewmi Sport wax sunu lamb dem ci suuf si wax ci nga xam ne mooy c'est combat choc plébiscite cité Lac de Tafatine Reug Reug Sa Diène Kairé site loolu lañ ci wax Papa Sow Gui donc euh, wax ci également yenen combat yi nga xamné ñing koy sa Thiès ak Reug Reug gars yi jëm ci li nga xam moy mooy VAR bi ah VAR bi donc gars yi doon répondre question yi hein di len di jaajëfal ah. donc li wax rek di dem échanger la ci walu football la ci wax sax su nekk ki woon démb Abdoulaye Sow la woon gars yi donc le fils de Bosco Sow li je VAR bi nag gars yi ki melati tay ki dañ ko don tuddee le garincha sénégalais gars yi eh, mi ngi dund batay tey nañ ko ñaanal gudd fan wér wér un grand monsieur du football gars yi kii kan monsieur ola laa ko woowee man donc bo gisee rek O bi ngay njëkk a gis jantal pas un grand joueur ko mooy kan VAR na nag gars yi tey <laughs> sama mbokk yi ha ah, séeréer yeeg yoy ha sama mbokk yi nek Europe ak tout gars yi di faro faroon di ndékkee li ah mburoog akara genn len wax wax anecdote par rapport ak ndékki han ah. ndékki fajar geeg ak ñi ko doon jogoon ay 5 h et tout gars yi loolu mooy ñëw li wax ci VAR bi par rapport également ki ngeen di gis ni donc di DJ Drogba DJ Drogba gannaaw Samuel eto mom nee actuellement li bëgg moy li nga xam moy fédération donc bu ivoirienne bu football la bëgg jël ndax ne loolu nek bëgg-bëggam ndax gis na ni war na mëna développer football ci Côte d'Ivoire ki ngeen gis ni également doon ñuko présenter un grand joueur donc qui a évolué notamment à Arsenal ki kan la gars yi donc il fait aujourd'hui c'est 33 ans aujourd'hui mingi ngi joué fi nga xam Southampton une pépite la woon ci Arsenal par rapport également information yi ki ngeen ni donc di Formiga Formiga nekk nag première jigéen bi nga xam ci histoire football notamment ci Brésil jofal nañ ko li nga xam Mineiro euh, Walk of Fame par rapport ak Tanka yi nga xam ne moo nekk jigéen bi nga xam ne empreinte am ñu koy a jox jigéen par rapport ak jaar football li nga xam également mooy jongante yamoon démb ah, ñu ne des colchoneros diaboliques par rapport à nga xam ne moo huitième de finale ah, Ligue des champions donc démb waa de. Madrid éliminé nga donc euh, Manchester United ak ki nga xam donc Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo guy bi mooy deuxième saison du dem li nga quart de finale Ligue des champions Cristiano Ronaldo té du mom kese ah Cristiano Ronaldo également nga xamné donc bi moy nek ah, depuis mu modèle c'est euh, Manchester United mu la compétition euh, d'autres ko joué li nga xam moy Ligue des champions ba koy dal c'était en 2005 Bob mi ngi ko fekkoon tamit Manchester United et il n'est pas le seul comme je l'ai dit moom ak nga xamné moy donc qui di euh, Lionel Messi Lionel Messi bi moy deuxième fois de manière consécutive Cristiano Ronaldo bi moy troisième fois de manière consécutive que gaay ñom ñuy ñew egg ci li nga xamne moy quart de finale maximum d'ari di toog loolu nekk loo aussi nañ ko retenir parce que ce sont les grands mastodons les deux grands mastodons ci wàllum football les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football gars yi loolu kenn du ko dindi par rapport ak seni ballon d'or par rapport ak seni i jaar-jaar kenn kii ballon d'or kenn ki mo ëpp but ci football, footballam Cristiano Ronaldo gis ngeen ko 2005 mo nek ci kaw le mujjé tok jëlul trophée donc bi moy nek gars pour la première fois mu tok ci saison jëlul sax benn trophée Cristiano Ronaldo ba mu nekkee Juve yëpp da doon jël trophée mais ren jëlul trophée également Harry Maguire bi mo traîné que les gars actuellement ce n'est pas un grand défenseur nous mis 5 ans et nous trophée pour Manchester United 5 ans amuñu trophée trophées. nous sama supporters supporters yi ah, ñi nga Nous football notamment les Paul Pogba également légende football français de Pogba ah, en forme nous en forme mais nous en forme tricher nous apporter également nous Nunez Darwin Nunez joueur Benfica de euh, Benfica nous Ajax Amsterdam moom nag actuellement gars wa euh, Liverpool ñoo ci teg seen gët pour renforcer sen équipe lolu tax ñu naan mom mëna na concurrent bu sérieux pour Sadio Mané mi ngi gis ngeen ko démb sax mom lañu ñu élire li nga xamné moy homme du match Darwin Nunez gars yi tuddee ko l'aigle du côté de la Benfica nek joueur bo xamné c'est un joueur très très prometteur mais également gars Sébastien Haller ñu koy wax première Ligue des champions am 11 buts deux passes décisives l'ivoirien le joueur d'Ajax Amsterdam que fierté également pour Afrique donc ñu koy wax bravo gars et par rapport également à Ligue des champions gars ñi nga xamné qualifié Les mi ah. donc ci li nga xamné mo jëm ci quart de finale hein. donc moy euh, Liverpool Bayern de Munich Atlético Madrid Real de Madrid Manchester City Et Benfica nous ñoo qualifié ci benen Walibi, Manchester United gars également di C'est seen trophée bi ñu mujjé jël ki mo taxoon ñu jël ko gis mon moi de kan di George ki ngeen koy Mourinho donc un qui ko présenté Mourinho de Special One Mingini mon nii Manchester United trophème. également Santiago bernabeu depuis 2020 bu mo première fois Santiago bernabeu di fest del del del del jëm classico bi la Maison Blanche et le Camp Nou donc les Blaugrana contre les Merengue match boobu dina neex neex par rapport ak histoire classico bi Cristiano ki nga donc Benzema mon neuvième meilleur buteur ci classico donc 38 classico classico disputé 10 passes décisives 11 buts 13 victoires là, 9 matchs nuls Gaï entre autres mais également de l'autre côté Busquets am troisième 3 meilleur joueur bi de l'histoire moo disputé le plus de classico am 42 classico Ben passe décisive musta Dougal, 19 victoires là, mais également 8 nuls qui nga Sergio Busquets qui nga également mooy Real de Madrid Gaï, quoi qu'on puisse dire ah, ko ah, ils ont actuellement 16 finales ils ont ramené joué donc remporté 13 titres am 274 victoires en Ligue des Champions les merengues côté également Real de Madrid Bataille, tey gars yi ki ngeen Marcelo fi mu ne nii bokk na nga xamné wa Real dañu leen bëgg Mom, jaay mom ak Eden Hazard ak également ñi nga xamné moy yeneen joueurs yu fa nekk ñoo xam ne dañ leen a bëgg a génne pour renforcer seen équipe pendant ça également du côté de la euh, du Barcelone également ki nga xam mooy Samuel Umtiti moom it Barcelone da ko bëgg a dàq benn yoon parce que nee nañ amatu leen njëriñ day blessé waa Lyon dañ ñëwoon dañ koy jëw indi mais par rapport ak li nga xam mooy méforme ak état physique moo tax ñu si am xel ñaar Gavi également waa Liverpool ñoo ko bëgg a selon les informations xëcc nangu ko si li nga xam mooy FC Barcelone moo tax ñu ngi proposé benn contrat bu 6 millions d' euros par an mais du moom kese Araujo également équipe yi di Manchester United ak Arsenal ñu ngi ci kawam pendant ce temps également Manchester City gars ne fait proposer à proposer à pour mu le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League 500 000 euros par semaine gars 500 000 euros par semaine lañ bëgg proposer qui donc qui dit Erling Haaland. Et du côté également de Liverpool des restes de Liverpool Origi n'est que priorité de Milan AC ndax ki nga Paolo Maldini n'est na attaquant le c'est un serial killer Bon le bëgg pour renforcer attaque Milan AC. également ki ngeen di El Cholo Diego Simeone il a fait vibrer gars hier l'Espagne Atlético Madrid actuellement c'est le patron Diego Simeone est un joueur beaucoup ko donc jouer ko joué loo ci li de bëgg nga jouer sentir football loolu pendant ce temps également Manchester United actuellement les gens yi notamment notamment ki nga xam ne Paul Scholes nee ki nga xam ne donc Radnik. xamul na lañ ko tànnee lutax ñu tànn ko parce que mom mënut ta yobu Manchester United fenn fenn fenn et pendant ce temps il pense à deux entraîneurs ñu wax ki nga xam ne Mauricio Pochettino ak Ralf Radnik, bi nga xam moy yor Ajax Amsterdam ñom ñaar lañuy wax Radnik nee mi ngi jang anglais Pochettino également mom nee actuellement dafa bëgg a dellu fa xam Premier League bu amé Manchester United day jëlee l'autre côté également Rudi Garcia mom nee na dernière fois bi nga xam ne moom la bëggoon nekk entraîneur presque nekkoon na entraîneur mooy ba Paul Scholes demee foofu nekkoon naroon na nekk entraîneur Manchester United Ole Gunnar Solskjaer excusez-moi ba mu fa jugee naroon na nekk entraîneur Manchester mais mu mujj gi mujjul ta am keneen ki nga xam ne nag mu ngi koy tudd du côté du Paris Saint-Germain muy Antonio Conte actuellement selon les informations Paris Saint-Germain dañ ko contacter pour xool ndax bëgg na ñëw yor équipe bi ndax moom gëm nañu mën na leen yor derby anglais yi war a am tey gars également Brighton ak Spurs Arsenal Liverpool 20h gars Arsenal Liverpool Liverpool tey bu dóoree donc day gëna a li nga xamné moy prime League bi ndax fimné ni liko Manchester City di rawee ci ay points du bëri et bonne nouvelle également du côté de Liverpool pour Liverpool mais également gars pour ñi nga xamné ñoy donc Liverpool ak Ibrahima Konaté ak ki mooy Mohamed Salah nga xam ne gars yi dañoo reprendre entraînement yi bokk nañ tax tey ci déplacement bi nga xam ne dañ ko war a am foofu noonu ci Arsenal mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal Alfred Gomis gars yi dafa blessé entre huit à sept dix semaines plus tôt lay toog dootul jouer ndax dafa am li nga xam ne donc fracture au niveau du doigt loolu nag mi ngi ko amoon ci match bi amoon diggante donc Rennes ak Lyon tax malheureusement du mën a ñëw gannaaw bi nga xamee am nañ donc un autre gardien bi nga xam ne daal dinay forfait loolu mauvaise nouvelle également pour Aliou Cissé nga xam ne dina convoqué beneen gardien et notamment bu moytul nga moy Aliou mooy Fati dina ko ki nga xam donc mooy Edouard Gomis actuellement ganaw bi Seyni Dieng ne moom dafa forfait voici un autre forfait qui double confrontation mais donc actuellement dañuy ñaan Yalla musul ñu ki nga xam moy suñu gardien titulaire dara bañ ko jot muy Edouard Mendy mais également ki nga xam moy Gary Neville nee Sadio Mané c'est voilà c'est une blague fof ci Liverpool lutax mo wax c'est une blague parce que néna actuellement Liverpool cette attaque bi ñu am Mohamed Salah moy meilleur buteur mais Sadio Mané Diogo Jota également ñi ngi liggéey lu am solo mais aussi gis na ne Luis Diaz boobu ñëwee ba tay amna lu mu apporté motax mu né Sadio Mané Mohamed Salah donc euh, Diogo Jota Luis Diaz attaque au Liverpool c'est une attaque de black parce qu'il ay le niam il am le cadres il double, am ay notamment Sadio Mane Mohamed Salah donc Mounek Kohamne il a beaucoup de euh, plutôt hein bëgg na Sadio Mane hein, également Liverpool Gary Neville en tout cas les gars c'était les informations que je voulais vous donner woy like woy abonné Jagen Jeff.